abonewul ci suñu chaîne bii di Khelcom production te bés cloche de notification bi ngir mën a mën di nekk ci bi ak fépp foo mën di nekk bi ah mais léegi la nga gis koo xam ne màggal gi mu ñëw day sol jasine sàcc portable ku kiris kolos yaa ko gën a rafet lu mu sol mais sàcc nga deesu nag nit ci mbubb nag mu rëy man ngaa sol mbubb mu rëy ba noppi di dóor kat ah dua bu do fa gis ku na diwe sama bayta jurul da leen ko dégg fi ci bëb bu ci yoon ku solo kiloot ba nga solo pantalon ngi mu wona a ma jurul di mais la ngay solo bax dak fu sori na diwe sa bay bët du set mu feeñ da ngay defar sa jëm ba ku la gis xemmeem la mais nga defar sa jikko nak doy na gore wéttaliku gore di wax dëgg di jëf dëgg murid wërta am jot li sëñ Tuubaa talif ci xasida am ko xam ko man ko warna la amago go meñago go xamago bul sank sa temps ben bayit kep bu ko xep par jour ben bayit wer wu dem nga am 30 bayit at mi 365 bayit ngay am ñata ko ñaata ben benn sa so ko ci sa bopp bala ma teud sa yu ma yeewoo bala ma teud na man wenn bayit wenn bayit mo gëna yomb juróomi wokal ma ngi nuyu ko ci bind bi mbokk mi ko kan la jotali ma sama nuyu wa groupe bi na ngeen def wenn bayitu ko gëna gatt la nga nuyu ci buntu bi lepp boko bolé man nga mu bayit groupe ak juróom-ñett nga bokk ci te benn daayira bokkoo ci nga xam ne boo tëddee di nelaw dalay wóor ne li nga jox sas ndaw moo ëpp li nga jox sëñ fi ne am na murit yooyu bu ñu defee bilan yàlla tax Covid bii jàll da ngay dégg ñu ne réew mi kenn liggéeyut noo Covid bi nangam daayira yi duñu tegal seeni cotisation boo nee teg bi ñu ne ren moom liggéeyul mais mosoo manqué connexion saa yu sa paas jeexee nga jënd beneen fi ne bari na ñooñ ñàkk julli tiitalu leen ñàkk woor jaaxalu leen connexion bu takk képp naqari képp ñu feebar non tey moom dëkk bi doxul parce que sama connexion yi sax wokkaal yi wàccut wokkaal yi wàccut yi mais julli sax defoo faratas yàlla joxe woo tàmbali dix heures di connecté ba quatre heures de matin te doo joxe addiye nga xam ne fi ne bari na kook murit boo xam ne xamal na boppam ne lim joxus ndawam rek moo ëpp lim jox Sëñ Tuubaa addiye dafay xam boppam nag ñoo ñoo daq coow ñoo indi problème yi ngay gis yëpp ñu bëgg cee jaaree ba yàpp na waaye boo boolee jàng xasida boo ko lay jàng da jubal raxas sa xol yi ci ne ci ayib yu safi foo aadana arahul ada waaye ju sada wa zalaamu tamoo ñooñu ñooy bëgg génn ci mbedd mi wax waxtu wu ne ñu naan nañ ñu nañ ñu financé ñun jeunesse yi ñun jeunesse bi 45 ans ku ko am naan ñun jeunesse bi wax naa ko bërki démb ci benn conférence boo xam ne sama ben xaritu kuy yëngu ci politique sama xarit la président bi denk na ko ay responsabilité yu bari dama ko ko wax ci conférence bi guddi gi dafa ñew sama kër mané ko da ngeen di bayyi ñi ngeen di finance nga xamne ko jox dara mu wuté ji portable ak mbub mu rafet di wër di ciné ba photo ñooñu du ñu réew mi da ngeen di fekk gone yi nga xamne ñu nekk ci marché ambulant yi ndaysan dis gor bayyi sa bayyi wala sa nijaay ci dëkk ba nekk Dakar di jaay ba sa wow ngay dox ci naaj wi gàjj gàccu ay tiset gàcc ay ngàcc ñii ay seedee la ñuy yor ñii di jaay njaama raas bu nawet bi jotee mbaam mun bàyyee seen dëkk duñ ko am mais ñu di gor bu nawet jotee ñu dem lañ am bay ko bu noppee noor bi ñu delloo Ndakaar lu ñu am dimbalee seen bay ñooñu booy investir ñooñu ngay investir ci ñoom jàppale leen mais investir koo xam ne amul lu muy liggéey sañse dong di jéegar jéegar dem ak a ñëw boo waxee mu ne réew maa ngi dox mais réew maa ngi dox yow loo participer ci réew mi ku nit ñi boo liggéey nag boo ko defee bandeur yooyu ngay jox sa alal mooy tax nit ñi bañ la bo gennati ëlëk na jox leen ma nu lànk nga na da ngeen ma wor fekk wóoruñu la ki nga joxo a nit ñi bo jox da ngay jox kuy dimbalé ab tëgg boko fekke ci mbaram jox ko matériel mu doon um métallique kuy baye mbam boko joxé fas mu jall gone yu bari bo leen joxon tay ñu ne ci tool yi nu ngoo liggéey bokkul ak ñi bëgg dund te nak bëgg doon mais jang man nga jang yalla moy fal xam ngeen ku daan jaay café ba yag tay mu doon milliardaire xam ngeen ku daan taxaw ci bunti magasin di pousse bourbette tay mu don import export xam ngeen ku dan taxaw ci mbedd yi di liggéey xam ngeen ku dan yori taxi de Kalando. tay mu nek ay transporteur nit day nungo bañ ta nungo liggey mais nak amna ño xamne bu ne juné rek tambali dossier duñ nungo liggéey bo tolo ci jaay soccu jaay soccu bu ruus amna ño xamne ndaw su ne ci dekk bi kep tax duñ ko di jaay te man nga ko baña tak loy loy mais bo amé ken dutu ak jom di kas rek di top internet bi ah. ta gis nga bu gis ngeen ñi ci ginaaw écran yi bu leen gondi am na ko fu nu lal ndogu évité ko moom du moom moom moom ndogu li de benn waaye la ñuy évité mu ànd ak moom bu demee tàmbali ko foto waaw teraanga yaa ngi de sëñ bi mooy loolu de gis nga ko de di yàq sa bopp nga naan diw day dund lu neex fekk dañ koy yóbbu muy dund lu neex waaye moom dund lu neex fu mu fekk këru jàmbor gu rafet piscine yi mu taxaw fi photo noo non sawaay gis ngeen mooy loolu nga naan sawaay ma nga Dakar di noos fekk bu guddee ci carton lay tëdd mais yàq na sa bopp ci jigéen ñi ñàkk fayda ñi nag topp leen ñeneen ñi amul fu jëm topp leen nga naan diw ba mu demee Dakar la tekki tekkiwu dara parce que ba léegi amagul néeg seen dëkk bari na koo xam ndakaaru mu lay jaay affaire amagul néeg seen dëkk portable dong la yor day xool ci sëñ Touba sëñ Touba dafa buuxante ba bokk bañ ba bokk ba tey boo nee yàlla na rasulullahi na Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ba dem ne ca kanam xaddamani li ala alquddaami bil muntaqal musabitul aqdaam yàlla jiital na ma ca mboolem liggéeykati rasulullahi sallallahu alayhi wa la ko ko may mooy nungoo liggéey jëpp ni nit ku ñuul laa dana bëri teg bëtam ci anas dem na raw naa ko teg bëtam ci kaab na raw naa ko teg bëtam ci xana xasan ibnu sabit na raw naa ko ba yàgg mu ne mboolem ku jóg di tagg rasulullahi raw naa la loolu yitte ju réyee ko may Serigne Touba kon buñ toog rek bokk ci coow li wàññi yi am kersa wañi wax ju ñaaw ji tiktok di saga rek ta rew mi kula la wax lu ñaaw mo am bës fàttalikul ëllëg sak njabot message ci du jall du wéy xoola tey sëñ ba léegi fuñ ko tek ku bokk ak mom bekk seigne sambay fu mu rek ñu ne seigne sambay nit day fexé ba bayyi fi image bu rafet lu sa yoon nekkul nga ci saagante yi waxante lu ñaaw ab taalibe bi daa war a jomb loolu sëñ Tuubaa daf noo jàngal ni ñu war a mel mais léegi ndaw ñi daal defee nañ ne diw am nay vie diw am nay nangam ak nangam ak nangam ak nangam. ne ku seen ngay dem sax war nga ko am benn waaye dafa ma woo démb démb la numéro bi am na whatsapp ma ne ko de aw ma ko de mu ne ma xanaa kon damay jaarale sama vocal yi ci diw ma ne ko kat téléphone am la yem sama téléphone. mu ne ma kilifa yi dañoo am whatsapp di ma ne ko daa ko bëggut bëgg maa topp nag ki ma woo nii sonale ba nii bu la doon yónnee vocal foo jëm boo euh, whatsapp benn yoon laa ko ma sam bi may dem Makka euh, bi may dem Makka laa ko ma sam ca laa génne ci whatsapp ba 2018 laa ko ma sa am yaakaar naa may dem makk ma taal rek mu doon juróomi junniy vocal waaye loolu garaawul juróomi junniy vocal yi garaawul waaye man ci whatsapp bi yónnee nañ ma ci loo xam ne moom ba léegi ku ma séen nga yor ko di envoyé rek ya sama xel day day jot yow ah waa kii moom ba lañ ma yónnee woon lañu ko yónnee <laughs> ah man de lañ ma yónnee woon hmm. la ilaha te ca makka lañ ma ko yónnee ca laa ko gendee yàlla xam ne ca makka nekk makk <laughs> barke borom Tuuba <laughs> léegi nag léegi nag liy problème bi mooy man temps bi bu ma boo ma wokkaalee tontuuma la nga ne kii daa ñàkk kersa wala daa ñàkk yitte te ñi lay wax ñëpp mënoo leen a wuyu nga muñ yor benn numéro ku jot baax na ku la jotul nga xam ne jotul man moom xàmmeewuma privé ak numéro bu yegg ak bu yeggul bu sonee daal bu ma nekkul ci waxtaan ba kii dinaa wuyu ndax loo wax naa tontu laqtuuma nëbbutuuma li may wax gaa ji ginnaaw écran yi moom bokkuma ci ñi ci ne da nga naan fang toog di wax ñu xam la xam ne balaa wax sensé profil am doon jigéen kooku daa jar tontonteel Nebu bopam ap ragal jar na nek di sagante ban dila ci gaddu yow nit ki day xam fi mi tek tankam ak fi mi jaar te seigne touba mi lu ne ñing ko koy wax mu muñ ko na nga fexe ba doon ci ñi man ci yoon wi ci dakk jëf ba yalla di fay ay wax bay jëf fexe ba sa diggante ak leer nak mo gën sa digënté nit ñi leer ndax nit ñi mom ku am ñu top la ku ñak ñu bala ku wopp nu daw la ku deenu fàtte la ku mere jéemal la bu mënul ci yow dara yàq sa der Sénégal moom fii ngay gis ab télé nit taxaw di xeex ngir nit diw ku ko laal ma nangam diw laa bëgg ñaari fan ñett mu ne diw baaxul ah, mais moomu yow jar na yow nga yàq sa sa àdduna yow as gor su moom boppam taxaw wax volontaire ci nangam ba nopp xëyaat man caa génn nit day fexe ba sàmm kàddoom liy waral sàmm sa kàddu mooy loo am mu doy la noo mel am nga koo tane billaahi boo amee carton goo tëdd ci ab néeg am na ko amul néeg bu mu tëdd ci carton boo amee gong am na ko amul gong waxtu wi ngay dox am na ko mënta dox waxtu wi ngay lekk am na ku mënta jàllale dara waxtu wii nga toog am na sa nawle boobu ñu ngi koy tënk fi ne am na ñu ne ci kaso yi am na ñu ngi leen di duma am na ñoo xam ne ña nga ca hôpital yi mënuñoo jàllale benn goxum ndox kon foo toll rek am nga koo tane na nga doylu القناعه كنز لا يفنى دويلو موي لودول جيخ لو ام فينا لو باري باري على روم تابخ بو موم روم كير غوم لو سا اوتو غاو غاوين بو جالي سي اوتو ابي اس بي ام اوتو بو لا غنا رافي تا جيغي نكاي موم با غوني كو نداو كون غيناو نومبل ام كولا راو تا كين مانتا غنا ليب فينا كين مانتا غنا ليب فينا بو ري غان مي سري ماكو غنا نجول مو غن لا غات ماكو غنا خيس مو غن لا نيول maa ko ëpp xaalis mu gën laa ñàkk maa ko ëpp xam-xam mu gën laa ñàkk a xam dara waaye mënoo koo boole gën koo njool gën koo gàtt benn kay ngay jël da koy gën a njool mu gën laa gàtt kon léegi boo nee maa la gën a njool ma ne maa la gën a gàtt léegi gañee naa la gàtt mënatoo ci dara maanaam kenn mënta jël yëpp adduna moom kenn du jël yëpp maa la gën a xees nga ne ko maa la gën a ñuul xees ak ñuula fi da ngaa xees yow ñuula lu mën a doon rek bu la nit nit mënta jël yëpp ci yow da lay lii nga ko lee waaye boo bëggee jël lépp coono la lay jural kon maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant abonnez-vous ci suñu chaîne bii di Khelcom production te bés cloche de notification bi ngir mën a jot bépp vidéo ak fépp foo di nekk ci àdduna bi ak fépp foo di nekk ci àdduna bi